Thank <laughs> you. ba bokk yi xarit yi salaamaaleykum ginnaaw bi ñu leen nuyoo dañuy am bu baax a baax ci ànd bi ngeen ànd ak ñun seen première chaîne de la banlieue di IM Télé tey nag ñi ngi fii ci Scat Urbam ñoo seet ñi nga xamante ñoom ñooy daayira Touba Scat Urbam ñëw fas yéene ànd ak ñoom ci euh, li nga xamante ne moom mooy 18e euh, safar bi nga xamante ni euh, moom la ñu organisé fii mu nekk lu ama am solo te nag mbokk yi comme ni ngeen ko gisee mbokk taalibe jóge nañ fu nekk ñëw fas yéene ñi nga xamante ni ñoom ñooy daayira Touba Escape Urbam mu nekk loo xamante ni lu ama am solo la li ñu def rek ci kanam tuuti mbokk yi xarit yi dinañ waxtaan ak ñi nga xamante ne ñooy mbokk jigéen ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci waañ wi ñu wax ñi nan la ñuy préparé li nga xamante ne moom mooy màggal Touba bi waaye dinañ bokk si ñi nga xamante ni aussi tamit moom mooy kilifa yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ñu waxtaan ak ñoom ci message bi nga xamante ni tey euh, xalif général des Mourides ñu koy ñaanal yal na yàlla guddal fanam te may ko message bi nga xamante ni moom la lancé ci mbokku taalibe yi muy képp koo xamante ni rek day fas yéene ñëw ci li nga xamante ni moom mooy màggalu Tuubaa bi bu mu fàttee li nga xamante ne moom mooy matukaay yi nga xamante ni moom la ñu war a jël ci ci li nga xamante ne moom mooy ci màggal gi ndaxte bu ñu xoolee tey màggal gi dafa particularité mooy Covid 19 bi nga xamante ni moom moo moom moo gane si li nga xamante ni moom mooy àdduna bi ñuy wax foofu rek képp koo xamante ni mbokku taalibe la rek booy ñëw nga nga nga nga nga nga àndaale li nga xamante ni moom mooy masque pour li lay aar. boo ko ni ñuy def rek mooy ci kanam tuuti dañuy xool ñi nga xamante ni ah, mooy mbokku taalibe yi li nga xamante ni ñoom la ñu organisé li nga xamante ni moom mooy safar bi. ci kanam tuuti nag mbokk yi xarit yi dinañ ñëwaat waxtaan ak jigéen ñi ak ni nga xamante ni noonu la ñuy préparé màggal Tuubaa bi ci kanam. ما سويك الكليل قلت لقائل مخافا مؤملي على المصطفى أبقى سلامي مكان فغاني بكسر خوان بما لو ولا إيجاد خديما للذي daal sa masque nga ko en fait pour bañ a wane sa genre yooyu defar may naat ba sax parce nekk na loo xam ne kenn xamul ko lay jeex te am na activité yoo xam ne mun ko ñàkk di ko def bañ a def moo tax dañ fagul rek jël suñu matuwaay rek comme ça bu dara bañ a fekk waaw li may naan safaru ñëpp la rek jigéen ñi lay def askan bi lay safar ñëpp nit ñi waxtaan di reetaan loolu mooy si waxtaan mbégte Ini nah, itu lah, kamu nggak ya, ya, ya, préparation Magal Touba ñu koy safar. waaw tey de dañoo tàmbali woon maanaam màggal weeru safar daal waaw même Serigne Touba dara nañ ko lépp suñu doole def si waaw waajal bésu màggal nag moo waral taxawaay bii nii tey waaw bu ñu xëyee jàng nañ kaamil wàcce nañ kaamil jàng ay waaw ngoon bi ñu def benn lii lépp nag sant Serigne Touba rek a ko waral. waaw moo tax ñu tàmbalee lii nii ndem ba ñuy def lii nii ba bañ ba keroog ñuy dem ci 18 safar daal ñu daal ay mbirum lañ te noonu lañ koy màggalee chaque année ñu ñaan sëriñ bi defal ñu ci ay tawfeex defal ñu ba lépp lu kawe suñu njort rek mu defal ñu ko si ñun moom amuñu fayam ndax népp lu ñu mel rek sëriñ Tuubaa moo ko def kon dañ koy sant ci loolu noonu bu baax waaw tey màggalu ren bi dafa am euh, particularité bu ci am. mooy dafa tombé ak euh, coronavirus dugg ci àdduna bi. Hmm. Euh, sëriñ bi am message bu am solo boo xam ne da ko da ko lancé mbokku taalibe yi. Hmm. yéen si si sensibilisation boobu fan ngeen ci toll ak seen daay waaw murit moom da di ne jëfe ndigal rek ko ko wax. Hmm. te ñun sëriñ Mountakha lu ñu wax rek. amaana loolu la ñuy def daal. waaw boo seeloo ci suuf gars yi takk nañ seen i gis nga fa ay gel tamit. lépp ci sensibilisation bi la dem sëriñ bi moo ñu gën a xam li xew suba moo tax ñu fagaroo noonu te topp ci ay ndigalam rek waaw du ragal corona nag moo tax ñu koy def waaw dafa doon loo xam ne nii ndigal la te dañ koy wéyale en tant que murid daal foofu daal lañ taxawee te di ñaaxaat nit ñi bu baax waaw ñu gën a jàpp ci ci sensibilisation bi te xam ne loolu noonu amaana dina fi gaaw a jëlee feebar bi et je pense que ni loolu dina participer ci loo xam ne nii dina gaaw a suqaliwaat bi mm-hmm. kon ku nekk war nga ko mën a def sa combat boobu porté ko mën ko ba mu loo xam ne dafay gaaw a jóge ci bi mhm. fokk ya xarit yi ba tey ah yéen a ngi seen euh, première chaîne de la banlieue di IM Télé gis ngeen tey safar bi nga xamante ni moom la ñëw tey si Scat Urbam ñu ngi ci biir waañ bi di waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy suñu mbokk jigéen ñi comme ni ñu koy waxee rek ndaxte bu ñu nee màggal xam nga jigéen ñi dafa am euh, Euh, wàll bu am solo boo xamante ni ñoom dañ ko ci dañ ko ci dañ ko ci def mu nekk lu am am solo ba tax na rek ñuy toog ak suñu benn yaay ñu waxtaan ak ñoom euh, ñu waxtaan ak moom euh, message bi nga xamante ni war na ko mën a andi ci li nga xamante ni moom mooy tey li nga xamante ni moom la ñu organiser fii waaye également li nga xamante ni ñoom moom la ñuy préparé li nga xamante moom mooy màggal Tuubaa bi maman maa ngi lay nuyu tur bi nan la Fatou waaw dama bëggoon nga xool caméra bi tey euh, boo ñuy wax tey ci li nga xamante ne moom ngeen organisé fii parce que gis na ni jigéen ñi dafa am euh, dafa am wàll bu am solo boo xam ne dañ ko nga waxee rek rafet na xanaa di sant yàlla waat di dund ci yonent bi sant sant sang sang yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom may fan bu gudd ak wér fekkee waa safar bi si jàmm di ñaan yàlla rek def bàyyi at yu bëree bëri ñaan yàlla suñu borom aussi mu jàppale ñu ko. lépp lu ñu ci sumb rek ñu yeggale ko ni ñu koy defee sax at bu jot rek nañ ko commencé ko ci bisimilah di ñaan ay dëkkandoo yu baax lañu muy sama compagne Ndiaye mooy sama soxna si Ndiaye moo dëkk ci koñ bi ñu jox ko safar bi teg ko ci loxoom mu ne moom tamit dama ko jëloon naa ñëw pour jàppale ko ci wàññi loolu moo waral suñu ay tànk fii ndax yoonu sëñ Tuubaa moom tànk gën naa foo ko gisal war ngaa def ko barke mu ca boo amul dërëm boo ko def rek na am doole di nga ciy def kon moo tax ñu ñëw defal suñu ñaq waaw def suñu ñaq rek ngir jënd seen waaw ñu ci wàññi ñun ñooy jigéen ñi nañ yokk cet bi ko contrôler tamit xale yi aussi ndax ci lañ bokk buñ dem waaye ñu bàyyi xel ci cet bi di takk suñuy masque bu ñuy dem lu mel ni ci barab yi gën bëri xam nga wàññi ma mënoo a nekk di takk masque waaye am na barab yu ñuy toog danañ mën a suñuy masque ñu gën a yokk teg bi ci biir waañ bi gën a jël suñu matuwaay daal te xam ne feebar bi nag ñu ngi xanaa di ñaan suñu borom mu muccal nit rek ñu màggal ko ci ñaan yàlla dugg ci màggal bi jàmm génn ko waaw dama lay laaj sama bopp jigéen ñi rek ñu gën farluwaat di gën di ub bagage yi di jot seen moo sa bombukaay xam nga mënoo nekk ci wàññi def ay gel waaye omo yeeg madaar yaa ngi ci dëkk bi def say ndoxu omo orsonal di si raxasu di toppatoo bagage yi ndax biir tamit lu ca rek dugg na ci duñ ko raxasaat biir moom amul raxas nañ gën a toppatoo waañ bi gën a toppatoo bagage yi te comme niñ koy defee rek si dëkk sëñ Touba bi ñu yeggee moom dëkk yi dañuy wàcc jox gan ñi gan ñi tamit bu ñu croiser dara ñoo war a defar sëñ bi moom nee na boo amul dërëm boo ci def na ci def sa ñàkk nañ gën a defaraat yi rek gën a set waaw mbokk yi xarit yi gis ngeen ba tey rek ñi ngi continuer di ñi nga xamante ni di waxtaan ak ñi nga xamante ni moom mooy mbokk taalibe yi ci li nga xamante ne moom mooy wàccaayu màggal euh, bu 2020 bi euh, macha allah. kon euh, ñi ngi taxaw ak ki nga xamante ne moom mooy jawriñ Talla jawriñ taala Cissé ñu fas yéene waxtaan ak mbokk yi xarit yi ci message bi nga xamante ni. Euh, la xalif général des Mourides muy Serigne Mountakha Mbacké euh, message bi nga xamante ni envoyé na ko képp koo xamante ni mbokk taalibe la wala ngay jullit muy matukaay yi nga xamante ni moom la ñu war a jël ci euh, ci bi ñu war a ñëw ci màggal gi jëruñ maa ngi lay nuyu. waaw ñu ngi seen bu baax. di siyaar bu baax te di am contentement bu baax. te di wax ne jërëjëfete Serigne Touba jërëjëfete Serigne Touba ndaxte am murit bu ne loolu rek la war a def di sant sëñ bi rek. Mm-hmm. te tam naa ne ci suba ba te lépp rek di sax ndigal ndaxte ñëpp xam nañ ne jamono ji fu mu toll nii tey am na mbas mu nekk ci réew mi ba waral safar gi nañ ko daan defee ak nuñ ko defee ren am na tuuti coppite ndax bu ñu xoolee tey ci suba ba léegi mbokk taal bi ñu ngi ci te am na neneen nu mu daan demee tamit waaye ren tamit ak mbas mi moo tax ñu jéem a jël lu bëri wàññi ko parce que dañ ne murit moom dafa war di faree rek di dégg tey jëfe ñun tamit nag loolu lañ jàpp maanaam di dégg tey jëfee dégg gi moom mooy ab ak mbas mu nekk ci réew mi ñu fexe ba wàññi yëpp li nga xam ne nii tey day mën a def leneen loo xam ne daal du du du bokk ak ñun luñ bëgg moo tax ba sëñ bi defee waxee loolu ñu jëfee loolu moo tax bu ngeen xoolee tey mbokk taalibe yi ñu ngi kuréel mais amul sonorisation amul daal lépp rek ngir mën a yombal bés bi rek nit ñi xam ne ñun tat ñu ngi sant Serigne Touba sa tamit ñi ngi sante sëñ bi ci ndigal lu ñu ko sëriñ bi waxee muy sëriñ Muntaxa Mbàkke ñu ñaan mu yàgg fi loolu te wér ndax moom kan mooy suñu sëriñ Touba fi mu toll nii tey ñun amuñ kenn ku dul sëriñ Touba kon nag lépp lu ñuy def lu ne dañuy topp ci ndigalu sëñ bi rek comme que noonu la waxee ñu defee ko ko moo tax mbokk taal yi defee ko noonu ñi sant tamit suñ mbokk jolof-jolof yëpp ndax ñëpp teew nañ macha allah suba ba léegi xasida yi ñu ngi di ñu ngi kontaan nañ daal moom wax dëgg yàlla fi mu toll nii damaa mënee wut a wax sax waaye suñuy wax ci loo xam ne sëriñ bi la yaakaar naa ne tey képp ku nekk am murid tey war nga mën a wax ci sëñ bi parce que ñun amuñ dara lu sëriñ Touba te yaakaaru kenn ku dul sëriñ Touba tamit moo tax tey bis bi ni ñu màggalee ko ci ndigal ñu siy am contentement bu baax na ndax mbokk taaliba yëpp ñëw nañ te defee nañ ni ko sëriñ bi bëggee ñu siy kontaan bu baax di santaat sëriñ Touba bu baax nag waaw mooy mooy li ma tàmbalee woon rek ndaxte murid moom ndigal rek lay doxee moo tax suba bu léegi képp ku doon ñëw ci kaamil bi xam naa ne sax lu ngeen xaw a yéex ñoom moo tax fekkee mais képp ku ñëw ci kaamil bi am na ku toogoon ci ketu bi yore sab zel bu ñëwee tey moom mooy def gel bi nga gelu fekkee yoroo masque mu yëkkati masque jox la dañoo jëndoon suñu masque teg boo yorul masque mu jox la pour waral rek ndigal li loolu la sëriñ bi daf na ñun takk masque ndigal li noonu la moo taxit képp ku doon ñëw ku ne booy indiwul masque ñu yëkkati masque jox la ndax lépp rek mu ngi bokk ci ndigal ba tey rek ndax mu murit moom jëfe rek waaw noonu la demee waaw màggal moom xam naa ne sëriñ Tuubaa daa am lu wax danaan sama sama tay gu ne day gàcce sama démb kon nañ gën a xam ne màggal gi moom day gën a alaa daw me rek maanaam nu mu meloon daaw moom lu ko ëpp lay mel ren parce que Sëriñ Tuubaa moo wax loolu sama tay ju ne day gàcceel sama démb kon nañ jàpp ne màggal gi moom ay tawfeex rek lañ fay jëlee duñ fa jëlee leneen ay tawfeex kese lañ fay jëlee waaw mm-hmm. ah, mbokk taal bi de gannaaw dama leen wax ñu gën a góorgóorlu rek ndax Sëriñ moom nekk na koo xam ne ni tey boo xool ci suñu jëmm yi tey am na nuñ meloon démb te buñ melee nii tey sëriñ bi moo ñu ko def sëriñ bi moom ku ànd ak moom yaakaar naa ne doo torox te tamit da ngay am da ngay am banneex adduna am bànneex alaxira waaw ndax Serigne Touba moom noonu la moom ndax na moom ñeewut bor dafa mën ak fay loo ko loo ko lum la loo ko lebal lu ne dala kay fay ba wis la kon na képp koo xam ni jeune nga da ngaa war a tukk ci loolu parce que Serigne Touba moom moom moo fi nekk waaw Serigne Touba moo fi nekk ndax la ñun ñëpp tey am na nu ñu meloon tey bu ñu melee nii tey Serigne Touba moo ñu ko def moo tax dañ koy gën a santaat bu wér ndax day gis nañ ay yokkute yu bëri nag te yaakaar naa ne màggal gi tamit suñ ci jógee danañ ci gën a yokkaat ndax chaque année noonu lay demee chaque màggal boo fa jógee da nga amaat ay tawfeex gën a kawe te Serigne Touba moom moom moom mel noonu mooy li ma la waxoon léegi rek daa am ak kon nag kuy def ci moom ku ne defal loo man ndax dañ ne sëriñ Touba géej la rek boo ñëwee noo ci tëmbee rek noonu ngay tooyee waaw kon nag képp kuy murit ku ne ak képp ku bëgg texe ku ne man yaakaar naa da ngaa war a tëmb ba kenn du la gis soo génnee ñu xam ne yow mii tooy nga ci waaw noonu dëgg la nag. waaw ñu ngi sant bu baax bu ñu ñëwee si daayira bi. parce que tey daayira bi bi ñu fi ñëwee. mën nañu wax ne ay jeunes rek lañ fi fekk boo ñuy wax si daayira bi organisation bi ni mu demee ay jeunes rek lañ fi fekk macha allah. waaw daayira bi nag moom mën naa wax ne étudiants yi nga xam ne ñoom ñoo jigee woon Jolof ñëw Dakar ñoom ñoo toog ñu xam ne kat ñun ñii kat comme ñun ñëpp Linguère bañ fa nekkee amoon nañ ku nekk ci daayira boo nekk mais fii nag dañ fay ñëw suñu borom boole ñu bokk benn kër ñu ne kon war nañoo mën a organiser benn daayira boo xam ni sax guddi aljuma dañ koy def même bu dul dara nii sax guddi aljuma mu fekk fi benn nit wala ñaar nit dañ koy màggal ndax ay murit lañ boo xoolee daayira bu ñëpp ay jeunes lañ ndax amul kenn goo xam ne nii ëpp bu rax na ci maanaam daal ñëpp ay étudiant lañ moo tax daayira bi tey boo ñëwee tey mënoo xam ne kii mooy kii ndax yéen suba ba léegi ñëw ngeen te xamu leen kan mooy jëriñ waaw noonu demee parce que nit ku nekk daal luñ la jox da nga koy def ba ba mat sëkk maanaam man tey liggéey bi ñoom dañoo jël affaire bi tekk sama loxo rek mais man du mu ci leen ñoom dañoo baax rek waaw dañoo baax rek loolu mooy li nga xam ni tey ay jeunes yoo xam ne tey engagé wu nañ pour liggéey sëñ bi ndax sëñ bi moom lu ñu wax yow yaay mu xas bu bëgg moom faw day am ñun ñëw rek pour jagal bés bi nii mais sëriñ bi jagal na ko bu yàgg ndax bu ñu xoolee tey ci xéewal suba la jafe woon na lool ba mbokk taalibe ku nekk di wax waaye Serigne Touba moom ay mbiram moom day gën a jëm kanam rek waaw moo tax ñu ci nekk ñëpp chaque année mooy li ma la wax rek chaque année nag bu ñëwee gaa yi dañuy gën yokk moo tax étudiants yi fi mu toll nii tey yaakaar naa ne tey ñëpp ñu nekk ci kër gi ku ci même léegi sax lu gars yi wax jamono ji jamono ñu mel léegi ku ci am anniversaire sax da ngay mbokk taalibe ngeen kaa yi hmm. hmm. nga ci texe na nga ñëw nga jàpp nekk te mbokk étudiants ñu ngi yi nag hmm. uh-huh. am bu baax a baax waaye bu fekkee rek am nga mes euh, sa mot de la fin loo ne bëgg nga ko surtout si màggal wala mbokk taalibe waaw kanaa màggal gi moom lu waxoon rek la waxaat murid jëfe ndigal rek waaw sëñ bi moom lu ñuy wax nañ jëfe loolu rek ku ci nekk booy dem Touba nga bàyyi lool si xel sëriñ bi lii la ñuy digal nañ def loolu ndax sëriñ Touba loolu la bëgg loolu donc laa ci am kanaa tamit balaa may tëj rek ma sant mbokk taalibe yi bu baax ndax ndaxte gis naa ci ku nekk te li nga ci jëf te nee nañ nag safar gi kenn jëfalul kenn ku nekk sëriñ bi ngay jëfal te sëriñ bi loo ko jëfal mu fay la kon tey lu fu nekk yëpp du man du la leen lépp sëñ bi la kon ku nekk na xam ne lu mu ci jëf lu ne Serigne Touba moo koy fay waaw yàlla nañ Serigne Touba fay ñun ñëpp ba yéen ñii tey seen déplacement bi ngeen def bi ñëw ak bëgg delluwaat lépp yàlla nañ ko Serigne bi fay ñuy tuubaat baax di santaat borom Touba wér tamit te di wax Serigne Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg loolu te wér kon euh, mbokk yi xarit yi euh, gis ngeen mu nekkoon euh, ki nga xamante ne moom mooy jëwriñ bi nga xamante ne tey moom la doon waxtaan mu am kàddu yu am solo yi nga xamante ne wax na fi may jaajëfal a baax ki nga xamante ne moo nekkoon ci cadrage bi mooy ah, Issa Pa Issa ak ki nga xamante moom mooy seeni Diop ah, ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal également ki nga xamante ne tey moom moo tax ñu ñëw fi tey muy ah, muy Bamba di jaajëfal baax a baax accueil bi nga xamante ne tey fekk nañ ko fii ci kër gi mu nekk lu ama am solo mbokk li ñuy wax rek mooy képp koo xamante ne taalibe nga rek di li nga xamante ne moom mooy màggalu Touba bi bul fàtte ndigal yi nga xamante ne moom la xalif bi wax muy bu ñu fàtte li nga xamante ne moom mooy masque bu ñu fàtte aussi andi li nga xamante moom mooy gel yi parce que dañuy dimbali si wàllu wér-gu-yaram ma la ñuy jaajëfal bu baax a baax mu nekkoon spécial ah màggal Touba fii si Escape Urbam jërëjëf ba beneen yoon